alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuuthi rahmatan lil alamin sayyid al awwalina wal axirina muhammad ibn abdillah salawatullahi wa salaamuhu alayhi thumma amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi gannaaw bi sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am dégte ak kontante ñëwaat ak yéen ci tafsirul quran bi ñuy amal euh, nekk ak yéen ci suratu naxli saar wi nga xamante ne ni yàlla moo ngi tudde yamb wala nga wax suratu niam saaru xéewal yi te waxoon naa leen ko di ko waxati nee na aaya booba ca gën a neex rek toujours moom mooy yàlla subhanahu wa taala aaya ji mu wax ne maa leen jox alquraanu karim limaale ko ci xéewal yi wa ma anzalna alayka alkitaaba illa li tubayina lahum alladi ixtalafu fii wa hudan wa rahmatan li qawmi yuminuun yàlla subhanahu wa taala nee na maa la jox alquran yow muhammad mu bokk ci xéewal yi ma leen xéewale ngir nga leeral leeralal ci gaa yi mbir yi nga xamante ne ni dafa leerul ci seen bopp ñu ciy werante bu dee waa ahlul kitaab yahud yi ak nasaraan si yu bari yéen doon werante alxuraan leeral na ko yow jullit bi xamoo foo jaar alxuraan leeralal la foo jaar woote yi bari mbooloo yi bari alquran neena la bo ñewé fi insha allah wa taala dinañ la wan kan moy yalla ba nga xam ko te boko xamé di ko bëgg te soko di ko jaamu insha allahu wa taala mbokk yi newoon nañ leen bi passé bi ginnaw bi yalla subhanahu wa taala commencé sar wi wax ci yawmal qiyam seetal bopam ci bokkaale gi ngoy mu wax ni mom mo yabal jibril mu indi alquranul karim mu jox ko yonenti bi pour mu gindi mom yalla mi nga xamanteni ni moy tan ko ko neex ci ay jaamum def ko yonent donte ko leeral na ne nak be passé yonent bi nak neena na ci mujj lolu def na leer na yalla subhanahu wa taala commencé ak ñun ma bind asaman ma bind suuf te man ko bind ci deug ay neen taxul ma bind ko ay tiaxan taxul ma bind ko ba mo waral ba sa yo génnee sa kër di dox ci kaw suufu ci yalla si waro dox di tiaxani ji mbaa nga yéeg ci jaww ji moo xam avion nga war wala lu mu mënti doon waroo koo yéeg ngir da ngay caaxaani ji parce que jawwu yàlla ji bind ko ngir ay caaxaan kon yow waroo cee dox di ci caaxaan looloolu moo tax yàlla subhanahu wa taala ne xalaqa samawati wal arda daal cee toftal bil xaq taala amma ashrikuun xalaqal insaana min nutfatin fa ida huwa xasimu mubin foofu lañ yemoon xasimu mubin dafa bëri wax doomu aadama dafa bari ak lu mu mën a weddi lan moo tax yàlla indi ko fii ci commencement saar wi parce que ca kaw yàlla nee na ata amrullahi yowmal qiyaam ñëw na dafa bokkoon ci waa Makka doon weddi ah mooy yowmal qiyaam waaw mooy yowmal qiyaam looloo waral nag yàlla subhaanahu wa taala daan doomu aadama ku bari wax la ku bëgg ab coow la waaw lan lañu ñu waxoon man yuxyi al izaama wa hiya ramiim yax yi yax yu fënëx yi kan moo ko mën a dekkalati yàlla ni leen baax na man yàlla subhaanahu wa taala dinaa ko dekkal ba ngeen xam ni man rek man maa fi nekk léegi nag yàlla daa di wax nag ni wal an'aama xalaqaha wal yàlla nee na maa leen bindal maa leen bindal mala yi muy xar bëy nag giléem ñeent yooyu maa leen ko bindal ba pare boo demee ci suratul an'am mu daan ni samaniyata azwaaj waaw maanaam ci may huit huit yàlla giléem moo ci may bu góor ak bu jigéen nag bu góor ak bu jigéen xar bu góor ak bu jigéen bëy bu góor ak bu jigéen yàlla ne na maa leen ko may te mbokk bul yaakaar ni li ay caaxaan la de yàlla mi ci alquran fii di ñu nettali daa di wax ni maa leen may mala yooyee mala yooyee boo ca xoolee mën nga caa gëmee yàlla subhanahu wa taala yarkatu xar yi war nañoo xam loolu monde bu yéeme la yàlla subhanahu wa taala wax mu daal ni lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun allahu akbar yàlla nee na dif mala yooyee bu ngeen ko rendee ba pare der ba kawar ga dang koy jëlat gaay di ci defar ay yir di sol su ko defee mu nek yére bu nugg wala par yenn saay sax surtout bu njëkkoon tay ji da nga gis arab yi seen xayma yi ñaan daan defar daanaka deri giléem yeeg yi lañu ko daan bu ñu paré balal ko bo fu duggé day allahu akbar nakum fi hadif ba paré nak yalla daan wa manafi' ma ci may ngeen am ci ay njariñ yu bare bare bare bare bare teji nak man gak nga ci rat sam soow daal di man der ba nañ ko jël jaay ko defar ci ay dal ñu daal di solaat da am doole am na bagage yu bëgg jël barab sàngam yóbbu ko banen barab yalla subhanahu wa taala neena na man ma len ko may pour ngeen yeen ci nak legi man nga ko jël mu lay bayal sa tol xariyek beuy ñoom it kazalika am nañ ay njariñ ci kër yi parce que pareen saa yi nga am gan fekk jamono neexul nga dugg ci gétt gi daal di génne xar daal di rendi mbaa nga rendi aw bëy macha allah yàlla nee na yooyu yëpp man maa leen ko may pour ngeen xam ni yàlla moo fi nekk moom yàlla subhanahu wa taala moom muy xéewalaat moo tax moo wax ni wal an'aama xalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un ba pare xoolal li ci gën a yéeme wa minha taakuluun yàlla subhanahu wa taala nee na da ngeen ciy lekk wallaay ndeysaan wa minha taakuluun da ngeen ciy xiilu xiilu yu am a am am solo loolu yàlla subhanahu wa taala moo ko wax mu ngi nii wa minha taakuluun yàlla nee na prinçay nga jël yàppu xar bu la neexee nga dibi ko bu la neexee nga ñu lakkal la ko ci gër gi soxna si lakkal la ko wala ak nu mu mënti doon macha allah nga lekk ba suur yàlla nee na wa minha taakuluun wala yàpp nag wala yàpp giléem ndeysaan bu ngeen amee xew ngeen jël yàpp togg ak bu mu ci mënti doon pare yenn saa sax ngeen am xew naqar ab dëj ngeen wuti nag ndeysaan daal di lekk yàlla nee na yooyu yépp moom la wa minha taakuluun wa lakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun yàlla subhaanahu wa nee na li gën a yéeme loolu nag aay bii gaa yi sàmm ñoo ko xam waaw gaa yi nga xam te dañuy sàmm am ak jur ñoo xam aaya bii li muy firi yàlla subhanahu wa taala nee na walakum fiiha jamaalun xiina turixuuna wa xiina tasraxuun yàlla nee na maa leen defal ci jur gi ab taar yéen ñi am yéen ñi am ak jur xam ngeen li may wax su ngeen leen xoolee rek kontaan waaye nag yàlla daf ci tudd ñaari waxtu xiina turixuuna wa xiina tasraxuun xiina turixuun yàlla na da di xool jur gi kontaan estan yi ñu demee ñu sàmmi ji bay ñibbi si waat pour dellu seen néeg yi pour toog daal di dëkk si waat daal di ñibbi ñibbi si xam nga jur gi bu ñu xëyee dañ leen di jël sàmmkat bi leen jël yóbbu leen ci àll bi yàlla nee na su ngoon jotee ba jur gi di ñibbi si waat yow boroom jur gi boo ko séenee muy ñëw dangay kontaan lool nak la ni ñi am ak jur ñoo xam ñi dëkk ci all bi ñoo xam xam ni seenu jur wàññeeku na ñewat na waxiina tasrahun ak jamono ji nga xamanteni ni da ngeen leen di genn suba gi bil ghudwa ñu genn wara dem da di sammi ci allah akbar mbokk yi lan mo tax yalla ci aya bi mu jital ñibisi bi ci dem ji parce que ñibbisi mooy sa xel dina dal sa jur gii dem woon ñëwaat na pareen saa yi nettu mën na ci dal am bu ci manqué ak lu mënti am daal ñëwaat na loolu moo gën a jigéen bànneexu bakken looloo waral yàlla ci commencement saar wi mu daal ni walakum fiha jamaalun xiina turixuuna wa xiina tasraxuun mbokk yi taar gi yàlla wax nag dina nekk ci mala dina nekk ci jikko taar dina nekk ci jikko xam-xam taar la lewet taar la fegu taar la waaye tamit ci mala yi yàlla subhaanahu wa taala na man maa ne ci defal ak taar jamono yu ñu sàmmjee ak jamono yi nga xam dañuy ñibbisi daal di lekk ba suur yàlla subhaanahu wa taala na loolu man la te xoolal bu ñu demee gàncax ga ñu nekk ci àll bu man maa ko saxal kat maa wàcce sama taw mu daal di ñor nag yi dem lekk ci yaa ngi dégg ba ci mbaam yi sax yaa ngi dégg ak ak ak fas yeeg lépp. moo tax yàlla dina ci ñëw ci biir incha allah tabaraka waaye xoolal mbokk yi yàlla daan ni wa taxmilu asqaalakum ila baladin lam takunu baalixihi illa bi shiqil anfus inna rabbakum la raufur rahim allah akbar yàlla nee na maa leen may giléem mu leen di yenul seeni bagage bu ngeen di tukki dëkk ak dëkk mbokk aay bi kañ la wàccoon sa jamonoy màkkatal mukarram ah est-ce que léegi ba léegi ñu ngi utiliser ay gëléem d'accord man naam am na yenn dëkk dëkkaan ñu koy utiliser ba léegi ci àll bi waaye dama laa bëgg xamal ni léegi yàlla may nañu yeneen moyens yu gën a efficace gëléem yu ñuy yennul ay bagage lu mel ni oto dinañ jël bagage teg ko ca kaw yéeg ci daal di dem yàlla nee na loolu man maa leen ko may yàlla nee na su ma leen may loolu ay gëléem wala su ma leen mayoon ay oto wala ay avion yoo xamante ne nii dina am balaas boo xamante ne nii ca la denc bagage yi kon di ngeen sonn ndax bu ngeen di tukki di ngeen yenu seeni bagage te loolu lu jar a bàyyi xel la yàlla subhaanahu wa taala bu demee bay détaillé yenn mbir rek xamal ne lu jar a bàyyi xel la wallaahi azim waxuma la yenu bagage de yàlla yàlla bu la nattu dal ba sa valise réer mbaa sa sac réer loolu rek coono la loolu rek dafa metti yàlla subhanahu wa taala nag daal di wax ni wa taxmilu asqaalakum ila baladin lam takunu baalixiihi ila bi shiqil anfus yàlla nee na bu fi giléem yi nekkul woon ah di ngeen sonn de tey jii bu fi oto yi nekkul woon dinañ sonn de tey jii bu fi oto amul woon wallahi alazim dinañ sonn waaye loo yor ci ay bagage boo demee garage gars yi jëlal la ko yabal la ko ci oto bi takk ko mbaal ko ba nga egg sab dëkk ñu daan la koy wàccee daal la koy jox yàlla subhanahu wa taala nee na moom la moom yàlla moo ñu ko xéewale moo tax mu wax ni wa taxmilu asqaalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqil anfus inna rabbakum la raufur rahim xoolal yàlla li mu jeexale aaya bi mu daal ni seen borom ak am yërmande ci yéen yàlla ak am yërmande ci yéen ak am ñeewante ci yéen yéen doomu aadama yi waaye ndeysaan xamuñu ko ñeewante googu yàlla am ci ñun xéewal googu yàlla yàlla di ñu ko defal yërmande gi nga xamante ne ni moom la am ci ñun teewul mu ñuy jaamuloo boppam moom yàlla ñun ñuy bañ yàlla daal di wax ni walxayla xayla wal bigaala wal xamiira li tarkabuuha wa ziina yàlla nee na maa leen may fas alxayla wal bigaala maa leen may berkelle berkelle mooy doomu fas ak mbaam wal yàlla nee na maa leen may tamit mbaam ay mbaam maa leen ko may gis ngeen ma leen doon wax ci émission bu njëkk ba yàlla subhaanahu wa taala bu détaillé yii nii yépp pour ñu bàyyi ci xel la mbaam mi nga yor ci kër gi fas wi nga yor ci kër gi mu lay defal ay service yooyu yépp yàlla subhaanahu wa taala nee na moom la ba pare li ci gën a yéeme daal ni li tarka buuxaa maa leen ko may pour ngeen ciy war yemu ca de wasiina wala taarlu bu njëkkoon da nga gis kilifa gu jékki-jékki rek yéeg aw fasam nii demul fenn ne yéeg fas rek solu ba jekk génn di doxantu waaw mais nag li tax yàlla gën koo bind moom mooy li tarka buuxaa moo tax loolu la jiital mu daal di wax wa ziina allahu akbar aaya jii nag moo jar a dégg wa yaxluqu maa laa taalamuun waxoon naa leen ko ci commencement ba ci deuxième émission bi ne naa leen yàlla nee na wa yaxluqu maa laa taalamuun dinaa bind ji ci jamono yu ngeen xamul waa Màkka la doon waxal yonent bi la doon waxal yéefari la doon waxal loolu laa ne ñun jamono tey jii gis nañ yeneen yoo xamante ne ni yonent bi saa salaam xama ko kon mbokk yi alquran muy téere dëgg alquran muy téere bi nga xamante ne ni yàlla subhaanahu wa taala moo ko jox yonent bi ngir mu ànd ak jamono aay bi ci mujj nag yàlla fi mu tëjee côté xéewal yooyu duggaat ci yeneen xéewal mu daal di wax ni wa ala allahi qasdu sadili wa minha jair walaw shaa la hadakum ajmain yàlla subhanahu wa taala nee na li nga xamante ne moom mooy yoonu mbaax dinañu ko wan dinañu ko wan wa ala allahi qasdu sabil yàlla nee na moom warloo na ci mbaaxam nag warul de mais ci mbaaxam dinañu wan yoonu woo xamante ne nii insha allahu rabbi bu ñu ci jaaree tàbbi àjjana waaye nag yàlla nee na wa minha jair da bàyyi xel de am na ci yoon yi yoon yoo xamante ni nii nag ku ci sóobu safara nga jëm mu daan ni walaw shaa Allah hadakum ajmain yàlla subhanahu wa taala nee na bu ko neexoon ñëpp jub waaye moom mooy def lu ko neex waaye nag may nañu ay xel yoo xamante ne nii incha allahu rabbi képp ku déglu am njàngaleem moom yàlla déglu alquranul karim topp ko di nga bokk ci gaa yi sóobu ci yoon wi nga xamante ne nii yéene tàbbi ji àjjana incha allah yàlla na yàlla dafa dégg topp jégal suñu bàkkaar waxtaan wi di ñëw. dinañ ñëwaat ak ci yeneen xéewal yoo xamante ne ni yàlla wax na ko ci saar wi bëgguñu bàyyi ci xel pour xam ni moom yàlla moom kese moo fi nekk kenn la la waxoon te commencement saar wa na ngeen xam ne man kenn maa fi nekk ragal leen ma ñu xam ko wa jazakumullahu xayran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu góorgóorlu leen ci alquran def leen ko lekk def ko naan ma nga bawoo ca mu wóor mi andi na leen jaral sonn bu wér na ngeen